nit ni ki masdaru fi'lul lay tuddee bi hamzil wasl
min qabli axir kooku fal maddu madd ga fii nadirihi ci moroomam ma ràgg muj urifa xam nañu ko xat na muy waar ka masdaril fi'li alladi qad budi'a bi hamzi waslin masdaru fi'l bu ñu tàmbalee hamza wasl ni ki tey irawa iriwa an ndax irawa ana bu mu tollool ma ngi tolloog ixdar ak ixmar wasnu ifal la irawa xamuloo ni ifal la aywa baat bi dafa ràggooguñ irawa raa yarau moo doon cosaanu baat bi nga tëgg ci ifal la bëgg ni irawa su ko defee xarfu ràgg taxarakat xarfu illa dégg nga te li ko jëkk di xarfu ràgg wu su ko ndawlu ko su ko defee soo toxalee fataa googee jox benn waaw bi nga li daxaam ci morom mi aywa mu des benn waaw ca muj fataa dawlu ko mu soppi ko kon iraawa alif gi ko xëcc ak waaw wi benn waaw la woon ifaal la baat bi raa yarau sulaasi la woon aywa su ko defee iraawa moo indi iraawa su ko defee kon iriwaa an lay doon madd daal di dikk ndax ixdarra ixdiraaran nga doon wax wartaa min arra'i irtiyaan ngay wax iftaala wal aadimu nadiri li nga xam ne lu ñàkk moroom la za qasrin su yoboo boroom qasru ga wa za maddin wala muy boroom madd ga lépp génn na qiyaas su amul nazir rek dootu qiyaas ndax ci bu wér bi nga ko mën natte xam bu dee bu ràgg nu mu koy amee su amul nazir nag te danañ ci joxe mis ay exemple kooku bi naqlin maxadam bi naqlin kaainun bi naqli bi samaai an il arab waaye qiyaasu naxwi moom nekk qiyaasu tasrif yi joxeetu ko kal xija fi alun rek la du dëgg xija amul nazir masdar bu ñu koy delloo naan foo fekk wasdu boobu masdaram day am alif la jëkk mujj amu ci kon xijaa fi'al rek la kon qasroom bi manqulun la anil arab wa kal xida yi firi aw dal yooyu yaari wasdu boobu wasdu te mooy fi'alun rek wa qasru zil maddi tiraaran mujmau alayhi wal aksu bi xulfin yaqaw nee na nag alifu mamduud loru way tax ñu def ko maqsuur kooku mujmaun alayhi wa huwa min ahsani darurati shicri ka ka sarfi maanaa ka sarfi ma la yansarif yooyu min ahsani darurati shicri mamduud bu ñu qasru ngir loru way sama u nga ni sama rek yam ca wala ma la yansarif bu ñu soppi munsarif wa yawma daxaltul xidra xidra unaysatin te bu dul woon way nga ni xidra unaysata ko yooyu yaar moom daruru yu gën a aywa su ko defee nag ah lu doon borom màdd nga xasru ko ngir lor way mujmaun alayhi lu ñu dëppoo la indal jamii li xusnihi wal aksu safaan ba nag ah lu ñu daawul lu ñu daawul xasru nga xasru ko ngir darura ah yaqa'u dana am bi xulfin ci wuute daal ndax it moom rafetul li annahu xurujun an il asli ah ah amma qasru bi ma ngi mel ne bi nga ne waxul shaacir bi layla wa ma layla wa lam ara mislaha bayna alsama wal ardi zaatu zaata iqaasi nee na layla daal wa ma layla tafximan ah arab bu la bëggee réelal nangam zaydun wa ma zaydun dikk na ci alquran alqaariatu ma alqaariatu bala cay wax dara alxaqatu ma alxaqatu bala cay wax dara zaydun wa ma zaydun zayd nangam la mel nangam la mel arab da koy wax tafximan wa ma zaydun layla wa ma layla mu ne walam ara mislaha zaata iqaasin mislaha musuma gis boroomi lett yu mel na moom bayna samaay wal ard mu ne bayna sama mooy shahid bi dégg nga amma maqsuur nga nga madd ko nag kooku moom yaqaw bi xulfin fi qiyaasihi wa adami qiyaasi سيغني أما وقوعه في العرب في شعر العرب فهو موجود قطعا كقول القائل سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء ولا غنى فلا يدوم دسخ فقر ولا غنى من ولا غناء يرلروي est-ce que loolu mën nañu koy jëfandikoo ci même foo ko déggul muy xiyaas mu ne fii xilaaf wala aksu bi xulfin yaqa'u fi qiyaasihi wa adami qiyaasihi kayfiya kayfiya taytiyati maqsuur wal mamduudi wa jam'ihima tasxihan maqsuur ak mamduud nan la ñu koy tasniya ak nan la ñu koy jam'u maanaa alifa alifa ëppam googu mujj bu dee ci maqsuur ma nga fa bu dee ci mamduud moo soppi ko hamza soo ko dee tasniya ak jam'u nan nga def nan nga koy def da nga koy banoona ñu ne ah am na ci de ndegam asliya la wala da nga koo war a soppi waaw wala da nga koo war a soppi yaa Eh, aaxira maqsuurin tusan nij'alhu yaa in kaana an salaasatin burtaqiya kaza alladi lyaa asluhu naxwu lfata waljaamidu alladi umiila kamata nee na mujj maqsuur boo bëgg a tusanni nga di ko tasniya ij'alhu def ko yaa an yaa dégg nga in kaana su nekkee murtaqiyan an salaasatin ah su fekkee ne nag ëppul salaasa ah seetal cosaan ba du dëgg asa ëppul ñetti xaraf nga daal di ko bëgg a tasniya seetal cosaanu alif ga rek ndax alif moom la taqbalul xaraka kon alifu tasniya gi du ci mën a topp ndax moom du nangu xaraka kon duñu ko banoonu nañ seet lu ñu koy soppi ñu seet ni gii kat dégg nañu arab naan asawtu ay darabtuhu bil asa ñu ni kon a alif gu waaw la ñu ni asawaani yaariyat du dëgg bu dee yaa it kazalik du dëgg ah kon def ko yaa su fekkee ne ëpp na ñetti araf nag moom kooku yaa rek la war a doon in kaana murtaqiyan maanaa di aji passé an salaasatin kadaanaka noonu eh, dégg nga aywa eh, alladi li nga xam ni yaa mooy cosaanam seetal Mustapha alifam googu Mustapha xam nga ni kooku ci xumaas yi la jóge ëpp na ñett alif gi ku ne ci la sakk an asal alif yi waawun min s- min as-safwati waaye nag ëpp ëpp gi mu ëpp ñetti araf tax na Mustapha yaani ngay wax waaye du tax nga dellu naan Mustapha waani te walaay in kaana an salaasatin murtaqiyan kaza naka noonu alladi maqsuur ba nga xam ni alyaau yaa asluhu mooy cosaanam ni ki fataa ñetti araf rek la maqsuur la waaye nag yaa moo doon cosaanu googu alif ndax dañuy wax fatiya ndawe na dégg nga nga ni fata yaani wal jaamidoog jaamit mooy borom alif gi nga xam ne moom amul benn cosaan lu muy dellu jaamit la noonu rek la dikk dégg nga alladi umi la su fekkee jaamit la waaye dañu koy imaa la ni ki mata mata ismul istifa amul istiqaaq kooku alif moom jaamit la waaye nag eh, dañu koy imaa la arab dana wax matee matee xam nga ba tey ci njàngi alquran koy ré- jàngal warsh matee lay wax wa yaquluuna matee hada alwaat kon nag imaala e imaalatul alif la ilal yaa'i kon nag la andi loolu soo ko dee tasniya nañ ko delloo ci yaa nga ni mata yaa ni soo jëloon mata def ko aw tur bañ ko def ismul istifham de def ko aw tur tudde ko nit wala leneen soo koy tasniya da nga naan mata yaa ni fi gayri daa lu dul lii nu wax tuqlabu dañu cay wëlbati eh, dégg nga ah, wa- alif alif waawan muy waaw fi gayri daa ci lu dul lii nu passé te dañu waxoon ni su fekkee ni dafa ëpp ñetti araf wala nga xam ne yaa moo doon cosaanam wala bu dee jaamit amul cosaan dañ ko daan imaala lu dul foofu nag alifu maqsuur dañu koy soppi waaw lu dëgg dafa mel ni kon soppi waaw la ñu bëggoon ci lépp waaye yett yooyu daw moom des ko ca dul mën ah, nga dal di ko soppi waaw dégg nga ah, ah, misaalam mm, mm, ah, lu mel ni ki dadaa mborent li si mu jaamit la ah léegi kon matul ëppul ñeenti araf doonul lu ñu daan imaala du dëgg cosaanam du yaa kon ngay wax dadawaani alifam nga sopp dégg nga soo ko soo soppee ba yeggal wa awliha dal koy méngale maakaana la nekkoon xat ulifa miineefoon ko xablu ci jëkk ci melow tasniya te mooy bu dee melow ra- waxtu rafaawa dal ciy sësale alif ga bu dee lu dul rafaa sësale ca eh, kile ba du dëgg sësale ca yaaga yaa te mooy mandarga li ràbb du dëgg wa maa ka saxraa bi waawin sunniya loo xam ne alifam nag alifu taanis la mamdood gi ni ki saxraa u kon sunniya bi waawin nga ni saxraa waani wa naxwu ilbaa'in kisaa'in wa xayaa bi waawin aw hamsin yetti lisim yi le bu la neexee xal bu ko waaw bu la neexee def ko hams mooy bu fekkee dégg nga alifam alifu mamdoodam lil ilxaaqi bi bi wasnin aaxara ka ilbaa'in mooy ak caas la guy ne ci loosu gëléem ñu di ko yeewe ay guntox ñuy wax alab alaba alabtu rumxa ay shaddattuhu bi il bil ilba kon alaba alif gi mamdood gi dégg nga du cosaan dégg nga lil ilxaaqi bi qirtaasin ficlaa lin qirtaasin ñu ni ilba in naxwi yoona yi ci seen tàndale ñu ni kooku dañ cee yokk alif gi li ilxaaqihi bi qirtaasin dégg nga su ko defee kooku bu la neexee ni ilba aani bu la neexee ni ilba yaani wala mu nekk cosaan loo xam ne waaw la woon ni ki kisaa un min kasawtu kasawtu fulaanin sawban ka nga ni kisaa in bu la neexee ni kisaa aani bu la neexee ni kisaa waani déet waaw am hamsa laa wax nga ni ilbaa aani wala ilbaa waani wala kisaa aani wala kisaa waani wa xayaa maanaam nga ni xayaa aani wala xayaa waani ndax kooku min xayi ya cosaan li yàlla woon kooku kon boo koy alifu mam doodam soo ko dee tasniya def ko waaw bu la neexee wala hams wa xayru ma zukira lu bokkut ak li nu tudd saxiix wéralal loolu te mooy li nga xam ne hamsak cosaan gaa fa nekkoon ni ki baatu qurraa'u min al qiraa'ati ñu jë tëgg ci lisim bu ñu wax qurraa'u mufrad la kat du jamu de du jamu qaari'in de qurraa'u mën nga ko wax jamu qaari'in dana am waaye qurraa'u li rajuli alladi yaqra'u al qur'aana kasiran wala li xasani al qiraa'ati jiddan danañu ko wax moom mufrad mi qurraa'u amma qurraa'u jamu qaari'in kooku kenn waxu ko lu dëgg ndax kooku jamu taksir la ba noppi kenn du jekki di ko tasniya at naan qurraa'u nag nga ne qurraa'aani dégg nga wa ma shadda lu génn qiyaas ci lii nu wax ci bunt bi lépp kooku xusira ñu yemale ko ala naqli min al arab maanaa ala samaa'i min al arab wala yuqaasu alayhi wa ma shadda ala naqlin xusir ni ki tey xawzala dégg nga li misyatin fiihi tabaxturun kooku luñ ca wax ci tasmiyaam lu doon xiyaas xaw zalayaani ndax dafa ëpp ñeenti araf ñett ëpp na ko xaw zalayaani waaye xaw zalaani ñu ne xaw zalaani kooku kon xaw zalayaani moo doon xiyaas dégg nga xamraa ut ñu wax xamraa yaani te kat xamraa waani rek nag moo doon xiyaas ba tey mën nga ko wax wa ma shadda amma zukira قصر على نقل على نقل على سماع من العرب ولا يقاس واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل دفا ترجمة وون نيو كوي تسنية اك نيو كوي جمع جمع تصحيح مذكر سالم wa- واحذف حذف ci مقصور ما تكمل لم متلي ci ban waxtu في حالة جمعه جمعا على حد المثنى جمع مذكر سالم li ñu tuddee jamu ala haddil musanna maanaam jamu baat ci melow tasniya ci mooy ku ci ne dañ cay ñaari dégg nga xaraf lañu koy liraabe woo xam ne nuuna cay topp kii waaw nga koy liraabe yaari xaraf waaw ak yaa nuun ga di ca topp bu dee tasniya aywa jamoot waaw ak yaa nuun di ca topp ci muslimoona mbaa muslimiina kon jamu la joo xam ne danañu ko tudde jamu ala haddil musanna ay ala sifatihi dégg nga fil i'raabi bil xarfayni wa nuuni baadahuma na nga xadaf ma takammala bihi la mu mate dégg nga ci maqsoor bitaa in wa alif fallali faqlib qalbaha fi tahniya baat yooyu mu doon tëdd lu mel ni yu misaale woon sahra ak kisaa un ak xayaa un lenn loo xam ne a alifam hamsaam taanis la woon ci mamdud ni ki sahra wala loo xam ne badalun an aslin la woon ni ki kisaa un ak xayaat wala loo xam ne xamsa ga asli la woon ni ki xamsa qurraun ak wuddaun te mu waxoon ni benn bi dañuy wéral alifam mooy bu dee taadis ni ki ah maanaam dañ koy soppi waaw faw ni ki saxraa u day wax saxraawaat kisaa un ak xayaa un bu la neexee qalbu su la neexee ba fa xamsa ga loolu la mu ma yaa ngi doon wax soo dee tasniya wa in jamaatahu soo ko dee jamu bi taa in wa alif te mooy jamu annas salim kon faqlib soppil wëlbatil al alifa alif ga qalbaha na nga ko daan soppee fi tasniyati ci tasniya foo ko daan defee waaw ni ki saxraa waani def ko waaw nga ne saxraa waatu soo ko daan wérale hamsa ga bàyyi ko fa ni ki qurraa un su fekkoon jigéen la qurraa aatun du dëgg su fekkee na kisaa un ah, ak xayaa un doon nga fu ko jamu su la neexee ni kisaa waani dégg nga nga wax ci sa- mooy na nga ko daan xalbu ci tasniya na nga ko ko xalbu ci jamoon na saalim wa taa azi taa alziman na tanxiya waa wa alziman na nga taqale faw tanxiyatan ak soreel maanaa ak xadaf taa azi taa taaw lu yor taawu taanis ca mufrad ma soo ko dee jamu jam muannas saalim muannas saalim taagoogee da nga koy dindi kooku ci fépp la nag ndax ñaari alaamatu taanis ndax jam muannas saalim taanis la ndax muannas rek lañ koy jamu kon bu fekkoon mu yoroon taa dégg nga ni ki makkatu walla maanaam euh, waaw ku mel ni fatimatu léegi soo ko bëggoon a jamu jamu muannas salim fatimatun ngay wax waaye doo ne fatimatatun di boole yaari tanis dégg nga su ko defee moom la ni wata wa alsiman na taqaleel tanxiyatan ak soreel ak xalaf na nga ko ta na nga ko dëkkee def ci taa asi taa taawu luy borom taa soo ko bëggee jàmm muannas salim taagu jëkk ga ca mufrad ma da nga koy dindi wa salim al ayni thulathis man anil itbaa aynin faahu bima shukil in sakin al ayni bada muannathan bada muxtataman bi taayi aw mujarrada mu- wa anil amalal salim al ayni dégg nga euh, loo xam ne dafa sukkoon ayin as thulathi te muy ñetti xaraf isman di lisim te ayin gësu ko ni ki tey darbatun lisim la du sifa gis nga bunt bi nag bu fi nee lisim araf ak fi'l faal tudd ko de bu nee lisim fii rek sifa la lu dul sifa tax muy wax ay fi'l ak xaraf moom amul fii bunt ah, dégg nga gannaaw si loolaak mu'tal ak mudaaf bare na lu ñuy àndandoo ñoom toujours ñooy bokk anam gu ñu leen di defe mu mu'talul ayn wala mudaaf mu'tal ak mudaaf dégg nga itbaa aynin wa anil amalal saalimal ayni lisim ju mucc ayn sulaasi maanaam isman muy lisim bañ a doon euh, euh, euh, bañ a doon sifa ni ki daxmatun aji rëy kon in anil amal ko itbaa aynin tofal goo tofal ayn ga ci maas ka faa ahoo faam nañu maasi woon faaga nanga ko maasee ayin ga bi maa sukki la ci lañu ko maase in badaa ndegam dafa feeñ saakinal ayni doon ku sukkoon ayin laa wax bu fekkee ayin ga sukkoonul ni ki sajaratun lisim la du sifa waaye kooku kenn du ko tofal maanaam noonu rek nga koy bàyyi sajaratun rek ngay wax dégg nga maska ga nga fa fekkoon in saakinal ayni badaa dananu wax sax bu fekkee ah, ah, bu fekkee fataa la dana ci delsi ba tey in badaa su feetee saakinal ayni kon nanga ko ko tofal niki darbatun nga ne darabaatun xam nga yaa ngi ko daal di tofal kile mu annasan tey mu annas in badaa saakinal ayni te mu annas la du muzakkar muxtataman bi taay suya boo dañu ko mottalee taa dégg nga niki darbatun wala mujarradan dañu koo rafleel ci taa dégg nga ni ki daadun nga ne daadaat daadun hind kooku danañ ci dikk mu ne su ko defee nag ah, muftataman bi tay aw mu niki darbatin wala mujarradan niki daadun nga ne darabaat ak daadaat wa sakkin na nga sukkoon attaaliya la topp xayral fatxi lu xayrul fatxi ci xarakaat yi mooy dam mbaa kasra su fekkee sulaasi yi boobu wut te du du sifa xanaa lisim la léegi njëlbeen ga du fata dam la wala kasra la ña nga ni ki qurbatun wala ah, ah, firiyat wala wala qirbatun waaw qurbatun ak jaamu wala xirbatun am mbuusu ndox xirbatu mooy mbuusu ndox nee na kon bu la neexee eh, wa- wa sakkin sukkoonal attaaliya xaraf wa topp xayral fati lu dul fata te mooy aynu baat ba toujours ndax lëf ki sulaasi yu la te li koy njëlbeen gi dugg fata kon bu la neexee sukkoon ko du dëgg aw xafifu mbaa nga woyafale ko bil fati ci fata ko fata ayin nga yaar yooyu daj eh, dagan na ca wa kullan ku ci ne ci yooyu yaar xad rawaw riwaaye nañu ko xirbatun nga ni xirbaat mbaa xiribaat lu dëgg qurbatun nga ni qurubaat mbaa qurbaat moo ni sakkinhu aw xafifu bil fati dégg nga bu fekkee ni njëlbeen nga fataawuñu ko suñu ko fataa nag ah, ni ki darbatun dégg nga kooku amul itbaa maanaam su fekkee fataa jiitu sak kooku benn anam moo ca dagan kii nag bu la neexee sukkoon ko taxfifan wala nga kii wa manao tere nañu itbaa naxwi dirwatin tof eh, toppal lu mel ne dirwatun jooju nga xam ni mujj gi dafa ràgg nag moom li mu topp ayin gi te mooy ràggi li mu topp du fata te dafa noon taaliya xayral fatxi na nga ca daganal ñaari anam sukkoon wala itbaa waaye nag su mujj gi ràggee te kasra dawlu niki zirwatun kooku nee na tere nañu ku ne ziriwaatun ndax ñaari kasra yi nga tegtale dafay diis wa zu- zubiyatin dégg nga kookoo tam eh, tere nañu nga naan zubuyaat subiya mooy geejo kan moom mu ñuy gasal gaynde di ko kërëb bi zubuyaat ndaxte dàmm dawlu yaa topp caat loolu dafa diis kon nga ni zubayaat rek te bañ ni zubuyaatun lu dégg kon nga taxfiif ko bil fathi waaye bu ko itbaa nag moom wa shadda néew na nag génn na qiyaas loo xam ni moog zirwatu ñoo niroo ni ki jirwatu ji firi ab kuti ñu di ko kasra dégg nañu jiri waat waaye loolu moo tax naadir la gis nga ni mu diise ñaari kasra yi dawlu wa naadirun aw zu turaarin aw zu tiraarin xayru ma qaddamtuhu aw li unaasin intama wa xayru ma qaddamtuhu lu bokk doot lii ma dawal ci bunt bi naadirun lu néewa lu néewa am la aw du tiraarin wala loru woye ko waral bokk awin tama wala mu askanu li unaasin ñeen aw nit ci arab doon luxatu qawmin xaas yooyu yett mooy am Eh, naadir ba moo mel ni kasrak jiriwaat gi nu wax léegi aywa kooku naadir la loru woy ga ma ngi mel ni ki ah, eh, ah, zafraat moom saakinul ayni la fata dawlu ko kon safaraat moo doon qiyaas ni ki baytu wa xummiltu safraati duha fa ataqtuha wa maa lii bi safraati l ashiyi yadaani te safaraat te doon wax ni ngay waxee darabaat dégg kooku loru woy la wa xummiltu yan nañu ma safraati duha ay wonki yoor yoor fa ataqtuha ma attan ko wa maa lii ñeelu ma yadaani ñaari loxo maanaam aw ma doole bi safraatil ashi ci mën a muñ nag wonki ngoon maanaam tiisi tiisi yor yor nee na yan nañu ma ko ma muñ ma man ko attan waaye ay tiisi ngoon nag moom attan ma ko zafaraati zafaraat moo doon xiyaar wala muy li unaasi nin tama wala mu askanoo ci loxo yenn nit yenn giir rek moo mel ni ki yenn arab ñuy wax jawazaat ak bayadaat di fata faageeg ayit gi te comme ayin nga dafa ràgg te dañoo waxoon i- saalimal ayni la ñu waxoon amma borom ayin gu ràgg ni ki baydatun ak rawdatun kooku eh, dañ ko war a bàyyi ci sukkoon nga jàng ci alquran fi rawdatil jannaati fataawoo ko waaye nag dégg nañu ci arab baadul arab mu ni jawazaat ak bayadaat Mm. lahu bayadaatun raa'ixun mutaawibun wow bayt xaw ma sax am nga ko am déet lahu ra- bayadaatun kooku aw nit ci arab a ko wax waaye loolu euh, du du qiyaas daal baydaatun la ñu waroon ni ki fii rawdaatil jannaati ndax ayin gër sa- du saalim dafa dafa ràgg du dëgg waaw waaw bayadaatun ak rawdaatun kooku bàyyi woon ko ca sukkoon nga moo xiyaasu waree su koo itbaa jamu taksir afilatun afulu summa fiala summa ta afaalun jumuu qilla jamu qilla yantiq wasnu la am afilatu ni ki tey afilatu eh, ni ki ci ci lu manqué lu néew daal lu néew mooy loo xam ni passé wul fukk lu ko passé mooy lu bare ci adat bi ci limu lu ñu war a jëf jamu taksir su amee yaari tëgg nag wa tëralal nañu ko gu gu bare ak gu néew ni ki dégg nga ximaarun man nga ni xamiirun failun jamu kasra la waaye man nga ni eh, afilatun ahmiratun su dekkee mbaam yi barewul nga ni salaasu ahmiratin salaasatu ahmiratin afilatun wala afulu ni ki tey kalbun bu dee yu néew nga ni salaasatu aklubin su fekkee bare na nga ni kilaabun fiaalun kooku jamu kasra la summa fialatun eh, ni ki sibiyatun bu fekkee barewuñu su baree nga ni sibiyaanun fialaanun lu bare la summa ta afaalin wala afaalun ni ki ajmaalun ay gëléem ndéem barewuñu suñu baree nga ni fiaalin mooy sixatu kasra nga ni jimaalun yooyu yant mooy jumu aqil la waaye nag yantang dana am ci arab koo xam ne benn siixa la tëgg muy mushtarak lu bare ak lu néew léeg-léeg mu indi siixatul kasrati fekk mushtarak la lu néew la ak lu bare laa ci yem noonu la ñu ko tërale du majaas du dara boobu baat rek la ci arab sànq ni ki rijaalun fi jam'i rajulin su dee ñettit fi aalun jamu kasra ji ngi lañ koy xal jox su dee lu néewi lu bareet fi aalun lañ koy jox dégg nga am na boo xam ne jàmmu xil la rek la ñu ko tëgg la ñu ko tëralal ni ki rajulun maanaam ni ki rijlun ab tànk ñu ni arjulun kooku lu mu bare wa arju raqat ay dihim wa arjuluhum min xilaafin loolu kenn xamul mbooloo mi muy dagg seen i tànk ak seen loxo nu ñu toll waaye arjulu rek la ñu wax amul jamu kasra moo tax kon loo mënti jamu ci rijlu arjul rek ngay wax rijaal